nan la mën a yàqee Balla Gaye numéro 2 benn waay bu ne moom taximan la waaw ci biir taxi daal nee na dafa dégg ay wax waaye nag Elton nañu waxante dëgg dafa def erreur dafa juum Elton ak Balla Gaye numéro 2 dafa am problème bu graaw a graaw a boo xam ne kenn waru ko tuuti Elton dafa génn le 14 bi passé la gis ben vidéo bu mu génnee di expliquer di wax né mom jaayul balagay numéro 2 ndax mom dañ koy jiiñ né modulo dafa dem ci modulo pour modulo Lo jox 6 millions pour mu jaay balagay numéro 2 manam fexé ba jox modulo tektal yi ak secret nu muy daanee balagay numéro 2 wala bu fekkee ne koy sëriñtu mu sëriñtu ko lol nak

Modou bu daanee làmb la buñ ko daanee làmb la Eumeu seen a ngi nii Modou Lo ko fi daan tey ana Eumeu Sène moo nekk roi des arènes waaye nag pour ñëwaat ci problème bi dafa am benn waay bu ne moom taximan la waaw ci biir taxi daal nee na dafa dégg ay wax ñu wax turu Elton ba ñu waxee Elton mu dégg Elton di wax ne ñoom Modou Lo dañu bëgg mu jàppale leen ngir mu daan Balla Gaye numéro 2 waaye moom 6 millions lay laaj waa ji ne Elton la nit ku njool décrire ko maanaam wax wax ne Elton daal moo wax loolu Elton nag génn na Lutte TV interviewé waat ko mu waat ne du moom moom jegewul sax Balla Gaye numéro 2 te wax na dëgg ci côté boobu nit ki balaa nga koy mën a yàqal day fekk nga jege ko yow nee na moom depuis mars Balla Gaye bu mu bëree Gris Bordeaux ci la gëj gis Balla Gaye numéro moom nee na dafa am problème ak Balla Gaye numéro 2 gëj na ko gis kon wax na dëgg côté boobu. nan la mën a yàq Balla Gaye numéro 2 ndax yow mënoo ko jox saafara mënoo dugal dara ci lekkam noonu rek la ko mënoon gaañe de wala demuloo ci ay entraînement boo demee ci entraînement mun nga ne ah Modou Lo Balla Gaye nii lay lii lay entraîné moom nee na ci sa tànk lay jaar wala nee na da lay dóor. xam nga noonu la mën a yàqalee Balla Gaye mais moom jegewul Balla Gaye jegaanewu ko ñu bëgg ko takkal ni lii dafa ñaaw waaye nag Elton nañu waxante dëgg dafa def erreur dafa juum ndax dafa dem ci benn tel internet ñu tàllal micro mu wax fa ñombe nañu waxante dëgg Elton dafa juum ndax moom dafa ne bay yaayam dafa naa yaayam la wax ba mu gaañoo Balla Gaye bi nga xam ne moom ci écurie Balla Gaye la nekk ñëwul jaale si ko waaye Modou Lo ñëw na jaale si ko loolu la wax ne loolu moo ko naqari te loolu ku mu daloon dina la naqari nañu waxante dëgg loolu tax moom mu ne sax gëj na écurie Balla Gaye 2 dematu fa entraîné nee na daal mbër yu ndawaan yi ndawaan yi foofu ñoom ñoo ñëw jaale ko mais amul keneen ku ñëw jaale ko nee na mbër yi ay faux type lañu maanaam ay naafeq lañu moom daal noonu la waxee waaye li tax wax ji garaaw loolu sax dëgg la moom nee na dëgg la dara nekku ci waaye nag li tax wax ji garaaw mooy Elton fan la juumee mooy ne Balla Gaye numéro 2 dafay préparer combat du siècle moom ak Modou Lo kon am na yoo xam ne même bu fekkee ne dëgg la da nga waroon bàyyi ba lamb bi passé nga koy doog wax ndax fi mu nekk nii lamb bi li ci des xëy na matul sax weer bu fekkee ne le 13 la kon nag bu fekkee nga génne information bi mën na déstabiliser maanaam mën na jaxase xelu Balla Gaye numéro 2 mën na jaxase ay supporteram ñu ne yow da ngaa war lii même bu fekkee ne dëgg la jaaleso la gaa loolu du yoon da nga waroon bàyyi ba combat bi passé. fi nga juumee mooy boo waxee rek dañ naan kon yow dafa mel da ngaa bëgg beddeeku dafa mel da ngaa bëgg far ci Modou Lo kon Elton erreur boobu la def waaye nag loolu warul tax. nit dem diko takal def ay enregistrement yo xamne du deug lolou dina leer ndax mom neena xamna xam ki ko def te dina ko porter plainte mais ñun dal suñu jéxalé moy supporter def leen attention li làmb rek la Balla gay lépp lu mu mën def pour wax supporter am ni Elton japp lu mu ko dara nako def waaw kuy daan yàlla bindu nako bu yàgg Balla bu daanee ñu xamne mo wara war a am Modou bu daanee ñu xamne mo wara am yàlla na leen jik mais nag bëgguñu Elton am benn problème géejawaay moom ak famille ak ñumu